asalaamaaleykum mbokki internet DKR 221 ñu desandi ba ci coow li nga xam ne dafa tàkk démb te lëmbee réew mi Miss Sénégal 2020 Fatimata Dione moom ci boppam daa mujjee génn def ay révélation yu choquante jëmale ko ci comité d'organisation ak seen njiit ki la di Amina Badiane xam ngeen ni nag yaayam Mati Cissé moo njëkk addu ci jafe-jafe yi nga xam ne doomam jot na koo dund ci at bi ñu ko falee Miss ak ci tuuxi doona yi nga xam ne élection yi ñoo ko ko yóbbee ci loolu sax ci la ñu jotoon xamal ni doomam bi mu gañee élection Miss Sénégal daaw ay weer rek lañu ci teg ñu sàkk ko egg ci kawam ba mu jëlee si ëmb Fatoumata jonn ci ay waxam xamal na ne askan wi viol boobu mu dundoon daaw ba jël si ëmb moom nag nee na comité bi ñoo ko woolu woon ngir benn cérémonie fii ci naajo naka noonee ba cérémonie ba jeexee ci lañu leen yóbbee ci benn hôtel ca wet ga ngir ñu fanaan fa ci ay waxam ba tey ci la leen Amina Badiane yóbbu ñu dem dîner ji ak ay naar après dîner boobu itam si lañu ñu leen euh, fekk si seen chambre ñu ànd ak Amina Badiane mu yóbbu leen fa moom nag Miss bi mi ngi àndaloon ak euh, Miss Sénégal 2019 kii di Alberta Diatta si la Amina Badiane ñëw jël si leen ngir ñu dem ca chambre ba nag fekk fa invité yooyu muy woowee ay kilifa maanaam naar yi nga xam ne ñoom la ñu bokkaloon di reer ca restaurant hôtel ba waaye ba ñu nekkee si néeg ba Amina nag euh, dafa mel ne ku tegoon ab plan ngir màkkaroo leen ak kilifa yooyu kenn sax si ñoom jot na toog ci wetu Fatima si Fatima Jonn di ko raay maanaam di ko karese xale bi bañ si noonu sax la kilifa yooyu sant Miss Sénégal 2020 bi ngir mu yéeg ci table bi fekk xëccal leen waaye xale bi itamit bañ si la ko Amina commencé di ko sànni ay xeer naan ko dafa réew ca loole sax la Amina annulé voyage bi nga xam ne waroon nañu ko amal ca réewu Maroc ndax Fatoumata jonn déggalu ko waaye soxna si moom xamul luñ ko def ba egg ci kawam ndax nee na depuis ba mu jugee ca voyage boobu daal ca la am ay mettit yoo xam ne mi ngi ko doon yëg ci yaramam waaye ba tey xamu ci woon dara après nag si la mujjee waxtaan ak ki ko doon euh, waaja takk maanaam ki mu doon bëgganteel xamal ko ni dañu ko sàkku ci delluwaat hôpital ak yaayam ndax bu njëkk bi mu demee hôpital dañu ni ko woon dafa am fibrome waaye ba mu takkarnaase sa la ànd nag ak yaayam ci la ñu ko yëgal ni dafa ëmb lu toll si ñeenti weer léegi nag li jaaxal askan wi mooy xanaa comité bi yëguñu woon ëmb bi lu tax famille Fatoumata Dione ñoom tamit porté wuñu woon plainte tamit lu tax euh, comité d'organisation bi ñu yëgee ëmb bi wàccewuñu kile di Miss Sénégal 2020 teg fa keneen ndax tànk yaa ngi nekk Miss amoo droit am jëkkër amoo droit jël ëmb kon am na lu ñu waa comité bi di nëmb am na loo xam ne tamit kenn waxu ko gis nañu askan wi ñëpp jug di soutenir Fatima Dione ndax dañuy rëccu sabotage yi nga xam ne ñoo ko ko fi doon def waaye Amina Badiane njiitalu comité bi génn na def ab sorti bu kenn xamul mën nañu ko qualifier sax de irresponsable ndax ndaw sii dafa yëkkati ay kàddu yu ñàkk teggin jëmale ko ci Miss Sénégal 2020 lu ci mel ne yaa ñàkk fayda ku ñu violé yow la neex ak viol ñaari nit ñoo koy sekk naa xamul kàddu yi mu wax dayu bi nga xam ne moom la am ak fi mu mën a egg ba tax na réew bi ñëpp jug nañu féministes yi mouvement yi ngir rekk delloowaat ndaw si ci place loolu tax na sax dossier bi mujjee naa egg ci loxo yoon ndax lii du lu ndaw